ausu billahi min aseytaani rajimi barki seexul xadim maa ngi muslu ci seytaane julli ci sangu sang yi seydina muhammad salallahu alayhi wa maa ngi sant sëriñ tuuba xaadimul mustafa di ñaanal sunu sëriñ bi seex muhammadul muntaxa yal na ko sunu borom yàggal lool te ñu ànd moom waaw di sant mbokk yëpp ñu fi daje ñëpp ci pas-pas rek indi leen fi ñu ngi sant ñu ngi sant mbooleem ñi nga xam ne teew nañ ci jataay bi waaye doomi soxna ñu fi teew ñëpp lim nañ ko xam naa dellu ci waat sax euh, xol bu tooy rek waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Touba li ñu fi dajale lenn dong la mooy ñi ñun ñi taalibi Serigne Touba yaakaar Serigne Touba lépp ñu lépp yaakaar ji ñu ci Serigne Touba ñu jaar ko suñuy maam ba yegsi ñun ñi yaakaar jooju am ci Serigne Touba nag ku ko laal. laal nga ñu nguur soosu ñu wax Omar Diagne dégg nañu mu laal kilifa yi na loolu nag naqare nañu fa naqare yam fa la sunu mbir tàmbalee loolu lañuy woote tey jii di ko naqarlu mu fa naqar yam di sant mbooleem këri kilifi diine yi fi ñi nga xam ne yëg nañ ko te naqarlu nañ ko ñoo ngi leen ci sant bu baax te di dinañ ci ñaan ngërëmal Sëriñ Tuubaa ndax ngërëmal Sëriñ Tuubaa mooy ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sëñ bi liggéey na ba am loolu kon nag loolu moo ñu fi dajale mbooloo mi ma nekk fii Touba di sëtëb sëriñ Malick Bassine si sëñ Malick Bassine ñu bari xam ko ci kepparu sëriñ Touba lu mu am sëriñ Touba la ba si ci ñun ñii fii ñu toog di liggéey xel mu dal bi ñu fa am wërsëg bi ñu fa am lépp sëriñ Touba la kon ku laal suñu pas-pas rek laal nga ñu ngor suñoo Omar Diagne daal na xam ne laal na suñu pas-pas te daañu ko jëflante ak moom ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal mboolem ñi nga xam ne nii mbir mi laal nañ leen ñu leen ci sant bu baax te di leen gërëm ci loolu ñi ngi ñaanal sunu sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér di ñaanal mbooleem jullit ñëpp nag ñu ñaan jàmm ci réew mi yal ko suñu borom def ci réew mi ngóor soo ñoo jaañ nag moom li nga xam ni moo gën a moo gën a gaaw ci nga xam ne borom réew mi ba gën a réew mu seppi ko sànni ko ci àll ba wasalaamaaleykum wa rahmatullah